murid nag ñu di murid rek lay wax murid Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala ak murid ya njëkkoon ci jamono ban nekkoon murid mooy kan murid mooy ci yewu murid mooy ci yewu ci yewu ban naan yewute loolu mooy lan mooy ki xam boppam xam sa bopp gën a jafe ci àdduna ndax nit du gis boppam jikkoom yu ñaaw ci moom yépp du ko gis day gis rek jikkooy ñeneen ñi ñu muy jëflanteel ñu di ko war di ko nax di ko wax lu dul dëgg ñooñu lay gis seen ayib du gis mukk moom ayib bi boppam moom la ñu wax naan nit ki day wacc ëkk gu nekk ci bëtam di gis pepp suuf bu nekk ci bëtu keneen mel murit kon mooy ki gis ayib bi boppam ba xeeb boppam ba tiit ci boppam di wuti fa mu xettali ko kooku mooy murid ci xamul boppam dana jàpp ne dara la dana defe ne baax na dana defe ne kenn dana kenn gënu ko wala kenn taliwu ko kooku du wuti dara xeebul boppam naw na boppam day doyloo boppam kooku mooy ci réer wër moo di li arab di wax zëllil ak zëllilu mooy ci réer te réere ne réer na ndax bu xamoon ne réer na dina jéem a saafara réeram googu waaye dafa réer ba noppi réere réeram googu kooku mooy jël leen tan ñu ci yàlla musal xam sa bopp nag moo tax ñu ne araf nafsaka taarif rabbaka xamal sa bopp kon da nga xam sa borom lu jafe la boo xamee sa bopp sa bopp itteel la da nga daal di xam li ma waxoon léegi rek ne kenn ku nekk képp kuy dund am na jaar te boo seetloo sa bopp da nga xam yoon wa te yoon wa am na dëkk bu ñu jëm te yoon wi dana la ko defee nag da nga daal di fexee mucc ci mboolem way soxlaal yi lap nag ci géejub tawxiid diggante xam sa bopp ak géejub tawxiid xaawu fàlle bu xamee sa bopp rek dal di daanu ci biir géeju mooy tawxiid mooy xam yàlla teg ko fa nga ko war a teg teg suñu borom fa nga ko war a teg suñu borom boo ko tegee fa nga ko war a teg day dox ànd ak sa deret ci di daw ci sa yaram ni deret ji dawee ci sa yaram nga di ko gisee ngay gisee sa bët yi nga xam ne ñoom ngay gisee ji bëti yàlla ngay gisee sa nopp yi nopp yàlla ngay déggee sa tànk yi tànk yàlla ngay doxe sa loxo yi loxo yàlla ngay jëfe yow ñu xam yàlla ba lab ci léegi tawxiid foofu la la xam yàlla di yóbbu tawxiid itam bu sellee day seppi jaam bi jëlee ko ci jaam mi teg ko ci beneen péey boo xam ne mooy péeyu tabeek suñu borom di péeyu ak xam ko di péeyu yéemu ci moom ba fàtte lépp leneen lu mu doon dara dootu neex ci yow dootu am looy bëgg wala looy ñëbët da ngay tàggoog mboolem xalaati addina doo ragala ci dara ci addina doo xemmee ma ci dara doo wut ci dara suñu borom ba lay féete ci wet bu nekk foo jëm ci moom nga jublu doo wuti moom la moom nga koy fekk te moom ngay am